salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di nuyuwaat di leen dalal ak jàmm ci Sen Sports 221. kii di Samba Diallo bi nga xamante ni mu ngi foofu la ci Dynamo Kiev ca Ukraine tey ji dafa dugalaat ñaari bal double la maye ci li nga xamante ni moom la ñu tuddee UEFA Youth League. muy euh, Ligue des champions bi nga xamante ne ñu am 19 ans jëm suuf ñoo koy joué moom kii di Samba Diallo mu ngi doon joué ci U19 bu Dynamo Kiev ñoom nag dañoo dóor Bayern 4-0 moom moo dugal ñaari bali moom kii di Samba Diallo xam nga ay fan ci ginnaaw doon nañ leen xamal ne moom ndaw bi bi mu wàccee foofu la ca Ukraine yàggul waaye mu ngi fay def jaloore yu am solo jamono yi nag ñuy waxee ak yéen euh, gannaaw bi ñu dóoree ñoom euh, tey jii Dynamo Kiev bi mu dóoree Bayern nag 4-0 ñu ngi am gum 6 points ci li nga xamante ne mooy groupe bi ñoom ñoo waaye ki nga xamante ni mooy sàmba Diallo moom marqué na 3 bi ci li nga xamante ni mooy UEFA Youth League boobule ci deux matchs yi nga xamante ne joué gum nañ ko xam nga ñaari match képp la ñu joué gum mu marqué ci ñetti bal moom ki nga xamante ne mooy Samba Diallo bu ñu xoolee sax match yi nga xamante ne joué gum na ko yépp foofule ndax bi mu fa demee yàggul fukki match ci lay toll dix match yi nga xamante ne joué na ko moom kii di Samba Diallo marqué na ci 9 bi juróom-ñeent bal marqué na ko ci fukki match yi mu joué am ci itam lu toll ci 5 passes décisives 5 passes décisives ak bi maanaam fukki match yi nga xam ne joué na ko lu toll ci fukki bal ak ñeent yoo xamante ne dugal nañu ko tànk mu ngi ci moom moo dugal juróom-ñeent yi daal di joxe juróomi ñu daal koy dugal moom jeune euh, attaquant bi di kii di Euh, Samba Diallo voilà Samba Diallo moom nekk koo xamante ni fukki at ak juróom-ñett képp la am muy 18 ans nekk xale bu ndaw loolu waral na sax ba ñiiri moo Kiev di ko joueloo ci li nga xamante ne mooy euh, Youth League bi ñoom Dinamo Kiev sax tey dañoo ñàkk seen diggante ak na muy équipe bu mag bi waaye U19 bi moom dal dinañu duma ñi nga xamante ñoo di U19 bu Bayern duma yu metti ci tànku ki nga xamante ne mooy kii di Samba Diallo beneen attaquant sénégalais bi nga xamante ni moom la ñuy wax Cher Ndour nekk jeune bi nga xamante ni moom xale la xam nga transfert am jàlle woon nañu ko fii bi mu demee foofu la ca Benfica yaagul foofu la nekk moom mu nekk sénégalu italien moom kii di Cher nduur jamono yi nag moom dafa daal di dugal moom itam tey ji ci lii di UEFA Youth League muy Ligue des champions bi nga xamante ni ñu am 19 ans jëm suuf ñoo koy joué moom nag mu doon joué ci équipe bu Benfica bi ñu daal di dóor Barcelone 4-0 kon U19 bu Benfica moo door U19 bu Barça 4-0 ci lii di UEFA Youth League kii di Cher Ndour nekk jeune euh, euh, sénégalo italien moom moo daal di marqué li nga xamante ne mooy deuxième bii bi ci match boobu. bu ñëwee nag ci li nga xamante ne mooy UEFA Champions League bi muy compétition bu mag bi ki nga xamante ni mooy Idrissa Gana Gueye xam nga démb ñu ngi leen doon wax match bu rëy bi nga xamante ne def na ko moom sax moom la ñu joxoon li nga xamante ne mooy homme du match Idrissa Gana Gueye moom la ñu tànnoon mu nekkoon homme du match. mom nak buñu xolé li nga xamantene def nako ci match dem bi 64 ballon dal dina koy toucher mom Idrissa Gana am lu tolo ci 91% ci ay passam daf ko réussir mom Idrissa Gana Gueye def lu tolo ci 5 tackle daf lu 3 tolo ci 3 interception daf lu tolo ci 2 passes de clé mom nak daf na li nga xamantene moy 5 dribble 6 dribble def way 5 yeb daf ko dal réussir mom ki di Idrissa Gana way mu def lu tolo ci 11 duel 7 yeb mu dal di koy gagner ak benn bi bi nga xamanteni dugal nako kon nak mérité na ñu jox ko li nga xamante mooy homme du match loolu waral na ba moom sa Gana Gueye démb matt bi match boo xamante ni Mbappé mu ngi ci Neymar mu ngi ca ak ki nga xamante ni mooy kii di Lionel Messi nga dal di nekk homme du match li daal nekk na loo xamante ne liggéey rek moo ko mën a indi Idrissa Gana Gueye bu ñu xoolee nag moom jamono yi dal dina marqué 4 bi ci 6 match yi nga xamante ne joué na ko ak Paris Saint-Germain ji loolu nag bu ñu koy xool moom sa Gana Gueye day wane rek jamono mu ngi ci forme ndax loolu moo ëpp li nga xamante ne bii yi nga xamante ne marqué na ko ci ñetti at yi ñu génn maanaam ñetti at yi ñu génn yëpp Idrissa Gana Gueye joué toll ci 113 matchs 113 matchs joué na ko ci ñetti at yi ñu génn le 78 yi wala bokk lu ko ëpp mu ngi ko joué foofu la ca Paris Saint-Germain la ca des mu joué ko foofu la ca Everton muy ñetti at yi képp laa wax nag ñetti at yi ñu weesu ñetti at yi 113 matchs la ci joué diggante Paris Saint-Germain ak Everton marqué ci ñetti bal waaye nag ñu seetlu de sii match yi mu joué ren jii rek dal dina ci marqué quatre bi kon ñi si match yi li mu ci mark ci ay bii moo ëpp li mu marqué ci ñetti at yi ñu weesu moom Idrissa Gana Gueye kon mu ngi def liggéey bu am solo Mbaye Diagne mom nak xam nga dafa wara jouer sax ci li nga xamantene mom lañu tuddé Europa League euh, seen digënté lak ak ñi di wa Olympique de Marseille ñom Galatasaray Galatasaray dañuy jouer contre Olympique de Marseille Mbaye Diagne bokku ci groupe bi nga xamantene ño wara war ak Olympique de Marseille mom nak dal dinaay wax ci li nga xamante ni mooy euh, match boobu nga xamantene ñu ko wara jouer niki suba mom nee kat ñi di wa Galatasaray ñom dañoo am lu toll ci ñetti attaquant ñetti attaquant ñoo nekk ci équipe bobu waye nak ñom li leen yobbu fofu nga xamantene moy ci France moy dañ dem pour gagner te mu ne donte nañu ñoom am nañu tot ci ñetti attaquant yu xereñ mu ne coach bi mooy ki nga xamante ne moo yor cëgal guyeem maanaam moom mooy tànn ki nga xamante ni moom moom la wóolu ngir teg ko ci jongante googu waaye daal ak lu mën a xew moom moom kuñ fa mën a tey it ñoom gañe moo leen ñor kon Mbaye Diagne ak lu mën a xew ma xamal leen ne attaquant yooyu ñu am yëpp foofu la jël ca Galatasaray moo leen mën ndax moom donte ne li muy joué ci ay match foofu noonu avant bariwul woon te moo leen doon ëpp ay bii ndax ka ca gënoon a xereñ di Falcao sax jamono yi nga xamante ne dem na fa fële ci Rayo Vallecano Mbaye Diagne ko doon ëpp ay bii te mu kii moo ko ëppoon ay euh, temps de jeu Mbaye Diagne moom mu nga xamante ni jamono yi mu ngi foofu la ca France waajal match bi nga xamante ni ñii di Galatasaray war nañu koo am seen diggante ak Olympique de Marseille ni suba lay doon buñ jógee ci loolu nag dañuy ñëw ci li nga xamante ne mooy match yi nga xamante ne xewoon na tey jii Barcelone Barcelone moom nag jamono yi mën nañu wax ne seen coach bii de mën nañu wax ne daanaka mu ngi ci buntu bi maanaam fi mu ne nii daal bu ñu ko dàqoon ni du bett kenn. ndax ñaari matt la ñu jógam ci lii du UEFA Champions League ñaari match yëpp dañu ko ñàkk ñaari matt yoo xamante ne dañ leen dóor même score 3-0 la ñu dóoroon contre Bayern na ci matt bu njëkk bi tey jii moo doon match ñaareel bi Benfica dóoraat leen 3-0 ñum encaissé 6 bi marqué wuñu dara ci ñaari matt yi nga xamante ne joué gum nañu ko maanaam benn tir cadré sax amuñu xam nga balaa ngay dugal ah, dangay ngay mën a am sax li nga xamante ne mooy tir cadré ñaari match Barça joué ko ci Ligue des bi amuñ sax benn tir cadré wax malaak di dugal encaissé nag lu toll ci juróom benn bal ñàkk match yépp moom ki nga xamante ni mooy kii di Ronald Koeman ak i ndawam jamono yi nag moom kii di Koeman kenn xamatul ci mbiram lu bari bu ñu comme ni ma leen ko waxee bu ñu ne woon dàq nañu ko tey ji du bett kenn ndax Benfica tey jii dañu ko toroxal foofu la nga ne mooy ca Portugal ndax Benfica ñoo doon dalal Barcelone ñu jàppoon ne tey jii Barcelone dina relancer waat li nga xamante ni mooy euh, jëlaat yoonam euh, gannaaw bi mu ñàkkee waat bu njëkk bi waaye ñu gis ne daal ñi nga xamante ne ñoo di Benfica dañ leen euh, won li nga xamante ni maanaam dañ leen toroxal daal foofu loolu lañ ko mën a tuddee ñaari mat ci Barça yëgum yépp dañu ko ñàkk même score comme ni leen ko waxee léegi ki nga xamante ne mooy Cristiano Ronaldo moom tam tey ji moo génnee Manchester United ci li nga xamante ne mooy match bu métti bi ñu amoon seen diggante ak Villarreal gannaaw bi ñu amoon benn ak benn ki nga xamante ne mooy Cristiano Ronaldo ci minute bu mujj bi maanaam bi ñu demee sax ci quatre-vingt-quinzième minute ci la Ronaldo daal dugal bii bi nga xamante ni moo waral sax ñii di Manchester United gagné ñii di waa Villarreal bu Boulaye Dia ci fàttali Cristiano Ronaldo mooy joueur bi nga xamante ne moo ëpp lu mu joué ci ay match ci Ligue des Champions ndax ku nekk ci ñoom amoon na 177 ci ay match tey jii Chris joué waat na beneen match kon am na lu tor ci 178 ci ay match ci lu mu ci joué ci ay match yu bëree bëri ci Ligue des moom mu ngi ci loxol xamante ne mooy Cristiano moo ëpp lu mu joué itam euh, mu ëpp lu mu dugal ci final bu ñu toppee record yi xaw na bëri lool tey li li nga xamante ne mooy ci ëpp solo mooy tey la doon joué li nga xamante ne mooy 178e match mu nekk joueur bi ëpp lu mu joué ci li nga xamante ne mooy euh, compétition bi di Ligue des Champions. ki nga xamante ni nag mooy Lewandowski Lewandowski bu Bayern moom dafa daal di dugal li nga xamante ni mooy 119 bi ci 100 match yi nga xamante ne mujj na ko joué maanaam téeméeri match yi mu mujjee joué moom kii Lewandowski daf ci daal di dugal téeméer ak fukki balak ak juróom-ñeent ndax tey yu double la maye ci match bi nga xamante ne Bayern amoon nañu ko. ndax Bayern dañ doon joué seen diggante ak Dynamo Kiev Bayern daal di koy dóor-dóor yu metti waaye ki nga xamante ne mooy Lewandowski bile gannaaw bi mu doublé dafa nekk jamono yi koo xam ne 119 bii la daal di marqué ci téeméeri match yi mu mujjee joué ak Bayern. li nga xamante ni nag mooy FIFA Ballon d'Or muy Ballon d'Or bi nga xamante ni mën nañoo wax ne moom euh, at déw ni ki daaw xam ngeen ne amul ndax dañu ko tëbaloon li ko war waraloon nag li nga xamante ne moo xewoon ci biiru coronavirus bi lee nga xamante ni lu baree bari la yàq ci football bi Ballon boobu la dellu siwaat na ren jii lañ ko war a joxe la 29 novembre ci la ñuy joxe li nga xamante ne mooy Ballon d'Or boobu waaye nag ana ñen ñoo ko war a xëccoo dinañu ko xam le 8 bi nga xamante ni moom la ñu dëkk man maanaam fii léegi fukki fan ci kanam mën nañu xam ñan kan ak kan ñoo war a xëccoo luy ballon d'or boobule le 29 novembre nag ci la ñuy joxe li nga xamante ne mooy ballon d'or boobu nga xamante ñaar ñi ëpp lu ñu ko jël mooy kii di Lionel Messi moo ëpp lu mu ko jël ak kii nga xamante ne mooy Cristiano Ronaldo le 29 novembre ci la joxe li nga xamante ne mooy ballon d'or boobule bu ñëwee nag ci résultat match yi nga xamante ne na tey ci ci Champions League bi Atalanta ñu ngi doon joué ñoom tey jii seen diggante ak Young Boys Young Boys gi dóoroon Manchester United ci match bu njëkk ba Atalanta daf ko dal di dóor tey 1-0 Zenit Saint Petersburg mi nga xam ne dafa ñàkkoon match mu njëkk contre Chelsea tey dafa dóor Malmo 4-0 dóor yi métti la ko dal di dóor Bayern jàpp Dinamo Kiev wulli ko ba mu nooy 5-0 la ko dal di dóor Benfica dóor Barcelone 3-0 Juventus moom dafa dalal Chelsea bu Edouard Mendy dal di koy dóor 1-0. voilà Manchester United dafa dal dalal Villarreal dóor ko 2 buts à 1 Salzburg. Salzbourg bu Autriche te ancien club bu Sadio dafa dalal Lille door ko 2 buts à 1 Wolfsburg ak FC bi dañoo match nul 1 bi partout